moo dellusiwaat ci ndimbalal yàlla tabaraka wa taala di santaat yàlla di julli ci Seydina Muhammad di santaat Cheikhul Xadim bu baax a baax a baax a baax xanaa ñu ñëwaat rek ci ni nga xam ne tàmbale woon nañ ko doon leen ko defal ba defoon ci lu toll ci ñaari weer waajtaayu màggal gi taxoon nag ñu taxawoon ba màggal gi jàll ak gàmmu gi ñu door a wéyalaat programme boobu mu di dañ daan tànn ci sëti sëriñ Tuubaa yi ñaar yu nekk ñu tànn leen di leen waxtaane par gaaw bu jot waaye xat-xati màggal gi tax loolu xawoon na sooxe ñu daal di koy doon dakkal ba màggal gee gàmm gi jàll ñu door a wiyaat ci loolu waaye dafa am nag lu ñëw surprise loo xam ne lu mu xat-xat rek fokk ñu bokk ko ci ndax dees ko dul mën a xaare temps boobu tayit ci waajtaayu màggal gi la bokk mu di ñetti jëmm yu tedd yi ngeen gis nga xam ne ñooy mbégum sëñ Touba di sagub sëñ Touba di sagub yoonu murit di boroomi baatin di boroomi cër di ñoo xamee ne que nii ak taalu bi daf leen a ñor ak lu baax ci sëriñ Touba soxla ci nit rawatina mbokkam mu taq ci boobu nga xam ne ku ko gis gis ko ku ko tudd tudd ko nga xam ne ñoom la daan wax naan na ngeen di moytandiku képp ku leen dégg bëgg leen waaye su jógee ba ñëw di leen seeti su ñëwee gis ci yéen jikko ju xeebu ba mu jaral ko lu mu naroon ci man mu bàyyi ko ba duutuma ko jaral dara bisa ngi ñëw ci si ëllëg bu ñëwee des sama àtteeg yéen booba ñett ñi taxuñu ko woon di wax ak ñañ bokkal pas-pas bokk ak ñoom jikko ñii bokkuñu ci ñi nga xam ne ñoom la sëñ Tuubaa doon wax naan maa ngi leen di dégg képp ku dikk ci yéen ne dama leen a bëgg a jox sama bopp àddina ak àllaaxira ku leen ko mën a wax jàpp leen lam leen lam leen wax ba fa ngeen ci mën a yam ak moom bu mu leen gisati mukk ci lu ngeen ko gën a bëgg lu dul yàlla ak bi te lu ngeen leen di digal na ngeen leen ci jiitu na ngeen leen ci nañ leen ci seen ba faw faw faw daa di wax na ku ngeen ci woo nag digal ko te yàlla tax dana ko def te du ko sañ a bañ ku ngeen ci woo te digal ko ngir seen bànneexu bakkan bu ngeen geesoo da ngeen ko gis mu romb leen te bu ngeen ko woo du dellu si waat booba ñetti sët yii bokk na ci ña sëñ Tuubaa bëggoon ay nitam mel ñi kon ñii de bokk nañ ci ñi sëñ taxoon sëñ Tuubaa doon wax naan kaanu ibadan li taaxatin li rabbihim boobu muy wax ci xoqal bu kaaw nga xam ne ay jaamukatu yàlla lañ yoo xam ne dañoo nangoon ak njaam te daan jaamu na yàlla bëggee ku ko ne jaamoo ñett ñii ci lañ bokk ak ñañ bokkal pas-pas bëgg waxtaan wi yaatu moo tax ñu def ko première ak deuxième waaye ñu tàmbalee nag ci jëmm ju tedd ji muy Cheikh Moustapha Salih di doomi Serigne Saliou Mbacké nga xam ne doyoon na sëkk présenté rek ne doomi sëñ Saalihu Mbàkke la waaye nag yemul ca njureel ga dafa liggéeyalaat boppam loo xam ne tey mën naa présenté boppam te du ci doo ci tudd sëñ Saalihu waaye keneen ku dul moom te meloon na ñett ñii foo tudde sa bopp danga nga ca teg sa waajur wala nga teg ci sëñ Tuubaa loolu nag la ko def mooy ñàkk battin ñàkk batin boo ko xasee def mooy waral xeebu gi am ci yoon wi ak tolof tolof yi am ci yoon wi ak noon yi am ci yoon wi ak tilim tilim yi am ci yoon wi ak gàkk-gàkk yi am ci yoon wi loolu ñàkk batin moo koy waral waaye soo amee batin fees dell sa place doota la yëngu doo mën a yëngu te koo dal ci kaw mu gaañu te ko dal ci sa kaw gaañu waaye bërigo yi xërëng xërëng yi yëpp dara da caa nekkul loolaa waral coow li bari Cheikh Moussa Saliou mii ku gëm Serigne baa ngi nii te bëgg sëriñ Touba te yaakaar sëriñ Touba te yemalewul ak sëriñ Touba ak kenn mu ñett nag fekk ko ñoo xam ne mën naa ne fondation sëriñ Touba bi téye yoonu murit ñett ñooñu la muy sëriñ Saliou mi waajuram sëriñ Abdou Lahad Mbacke mi ko yar ak sëriñ Soy bu Mbacke mi ko jàngal ñett ñooñu bokk ki nga xam ne mooy bàyyi ma doon sa jaxat nekk ay seeni sët ñu wuutu Serigne Touba kon ñett ñooñu ku ci ku ci ku jóge ci seeni keppaar lañ def ci yow nga matal ko ci yarba ak njuréel gi ak njàng ma fokk nga nekk ab taalibe sax fokk nga nekk ab taalibe taalibe boobu yi nag ci lañ bëgg a waxtaan ndax moom dong mooy la am njariñ lu waay am te amoog taalibe amoo dara te ñu bari nag jàpp nañ ne fi mu ne ab taalibe ñi sant gi ak sekk ak jaw yeneen sant yi donc ñoo war a doon taalibe jàppe seen bopp ay sëriñ te sëriñ Tuubaa doxalewul noonu ndax woote na ba ñëpp ñëw mu woo njabootam woo ay ay rakkam woo ñi nga xam ne ay jarbaatam la ne leen nag dama bëgg genn jaayante ku bëgg ci li ma yor te xam ne ak njuréel du ci may kenn dara rakk du ci may kenn dara jarbaat du ci may kenn dara doomam njëkk a jaayante jaayi njuréelam jënd ko taalibe ne ko lu ma ci mën a am nag joxaat naa la ko addiya mës ta tekki ndiggam si di liggéeyal sëñ Tuubaa ba xëy jóge fi muy sëriñ Mouhamadou Fadal Cheikh Mamadou Moustapha mës ta tekki ndiggam di liggéeyal sëñ Tuubaa ba tax yoon wi tey jii ñun ñu mën koo jariñoo ndax ñooñu buñ defoon ne ñii nef defal tey yaakaar naa ne yoon wi ko mën a jariñoo waaye moo tax mën a la ak taalibe rek am solo ndax ñëpp lañ am ci ak taalibe lañ ko teg sëñ Tuubaa it ci ak taalibe lañ ko nangul sëriñ Moustapha Saliou mii borom xol bu rafet a ngi nii borom xol bu baax a ngi nii ku bëgg àgg ci sëñ Tuubaa rek jàppal ci sëñ Moustapha Saliou sëñ Moustapha Saliou mooy borom qualité ku am qualité ngi nii du yàppar yàppare ci gannaaw kenn wala muy topp ci gannaaw kenn wala muy raayal kenn gannaawam sëriñ Tuubaa dafa fees bëtam da koo féete penku féete ko saw féete ko ci kaw féete ko gànnaar féete ko ci suuf amul leneen lu muy xool lu dul sëriñ Tuubaa leneen lu mu xool rek xamal ne sëñ Tuubaa ba tey moom lay xool ndax sëñ Tuubaa la ca gis jëmm jii ñu ko booleel muy sëñ Mbàkke soxna loo mas na ko seeral seere su rëy loolu man mii maa ko mën a témoigné maa sama benn doomu ne jaay yàlla na ko yàlla yërëm ñu fekk ko ci jumaa ja muy taxawul géey jumaa ji l'an 2000 la woon mooy jamono boobee nga xam ne ñu ngi woon ci ay élection mu doy loo sëñ Tuubaa rek wóolu ko ñu fekk ko ci jumaa ja nuyoo ak moom sama doomu nijaay boobu ne ko démb Taif Mbàkke laa jóge waaye président bi nga xam ne moom la Ablaye Wade wuutu moo fa ñëwoon waaye fa ngay xamee ne jëmm ji du nit muy sëñ Mbàkke soxna loo fam toog jógul barke Serigne Touba Mbàkke laa la wax fam toog jógul yënguwul billaahi wallaahi taalaahi Abdou Diouf ñëw mu jóg nuyu ko daal di toogaat fa mu toogoon yëkkatiwul kàddoom lenn lu dañuy wax ba seeral ko ko ndax bëgg mu dugal ci kàddoom waaye sëñ Touba dafa fees bëtam moom sëñ Mbàkke soxna loo mii doy loo sëñ Modou Moustapha wëkkilu ci yàlla moo tax lim am mu am ko ku jaarul doo tekki dara ci saw askan bañ ko ko nettalee sañu Moussa Saliou ne ko noonu la demee ak Abdou Diouf sëñ Moussa Saliou bëgg jëm bëgg sëñ Touba dafa ree ba tàpp tànk bi daan ne kooku dañ koo xamul sëriñ la wax sax dane sëriñ dañ koo xamul kooku bu yëngu woon yoon wi yëngu billaahi wallaahi taalaahi loolu la wax daane sëñ Mbàkke soxna loo bu yëngu woon yoon wi dana yëngu waaye moom it ñu fekk ko mu fees dell palaasum goro fees dell ak palaasum goro sëñ sa Saliou mii foofa la nekk lu dul sëriñ Touba rek amu ca soxla te sëñ Touba mooy jaamu yàlla ak fegu moo tax du yàppar yàppar ci buntu kër buur benn nga yaakaar moo di la ñaan audience ñett ñii ma rangale day amul kenn ku leen mas a gis ci buntu kër buur ñii day remplir nañ la sëriñ Touba waxoon ca Mbàkke Kajoor gannaaw ba ko sëñ Tayba Ndumbe Mar si la woo bañ dencee sëñ Mor Anta Sali ba ñëw mu woo ko ne ko danoo bëggoon nga ñëw jéggat ñëw fekk nu fii noo waxtaan ak yow Serigne Touba daal ne ñokket ndox tuuti jéggan mbooloo mi nag toog fi barab mu ne leen fii baax na lu ngeen wax danaa ko dégg tay teggin dong nga taxoon mu def ko ndax bañ a jéggin mbooloo mi ñu ne ko danoo bëggoon nga ñëw fii ñu jaale la sa waajuru tedd wa muy sëñ Mor Anta Sali te suñ fi jógee ñu ànd ak yow dem kër Lat Joor suñ demee nga jaal ko ko ndax wala rém la woon ñu boole la ak moom mu féete la la fa mu féete woon sëñ Mor Anta Sali yow it nga féete ko fa ko sëñ Mor Anta Sali féete woon Sëriñ Tuubaa sant leen gërëm leen ci njaale giñ ko jaale sëñ Mor Anta Sali waaye lam ca teg nag moom loole rek moo jar a taxaw te loolee ku raw say morom tey ci nga leen rawee te ci ñett ñii kun raw la rawee te ñooñee bay wuñ bay wuñ message sëñ booba moo tax ma ne ñii ne ci buntu kër buur yi amuñu baatin buñ amoon baatin duñ nekk ci buntu kër buur yi billaahi wallaahi taalaahi bi yàlla dogalee loolu am mu ne leen buurub addina day da ngeen gis ne yenn saa yi mu daal di woote ne nañ dem teral diw ñu dem teral diw moomee ak nu teraanga jamono toll ndax da koy sañ ndax jamono joojee moo fi nekk waaye bis na ñëw moom nun ñooy tolloo dayoo day wàccat ci buntu kër néew ji doole yi di lekkandoog ñoom di togga toggandoog ñoom lam jublu ci loola nag mooy bëgg a faluwaat koo xam ne nag dangay soxla nit door a man la ngay man man Ahmadou Bamba mii rus na ma yëkkati sama ñaari ndëggu tànk jëme ko ci kër buur yooyu nga xam ne seytaane fa la ñuy féexloo ca yo ci yooyu ci yooyu buntu kër dem di leen di sama soxla wala sku arju boobu mu wax wala aqsa siwa malik li annahu jàlla yox ni nawyin ji nii ci la bind xasida googu ñu wax xaalu li yarkan ni abwaabi salaati ni taxus jawaayi sa tox ni kulama hi ni wakkirlu ci yàlla rek moo lu sëñ Tuubaa am ci àddina moo ko moo ko ko am foofee la sëñ Moustapha Salihu mi teg tànkam ak sëriñ Mbàkke soxna loo mii ak sëñ Moustapha am sëñ Abdou sëñ Moussa Name sëñ Abdou Khadir mii amul ku ko soppul ci àddina ku baax ku baax ku nekk sopp nga ko ndax moom day daray lu baax du ko wute barke sëriñ Abdou Khadir du wute lu baax bu ngeen yàggee seetaan télévision bi di yàggee seetaan jataay yi lu fu fu lu baax rek nga koy séen penkook sawu fu lu baax rek nga koy séen ak ak am jàmm ak a baax ak a wegu ak jullite ak a taalubee ak bëgg sëriñ Touba bëgg sëriñ tubaa dong dong lu mu am àddina ak alaxira moo ko ko may kon xam ngeen ne wóor na leen ni kon ñett ñii sëriñ tubaa bu ëllëgee bu bu leen gisee dana bëgg ñoom it bu ñu gisee sëriñ tubaa danañ bëgg sëñ Moussa Saliou mii foofu la teg tànkam amul benn président bu fi ma a toog wala buurub àddina wala borom alal bu ma bu bu yàpp sëñ Moustapha Saliou amul du kenn nag kenn mënu koo jaay lu ko saf sëñ Touba rek la jënd moom daal di toog jàpp ñàmburam barkeb sëriñ Touba sëñ Moustapha Saliou mii borom personnalité borom dignité nom de qualité mooy sëñ Moustapha Saliou moo tax képp ku keppaaroog moom ay waxam doo ko netti sëñ Mbàkke soxna li mu ko keppaaroog moom ay waxam doo ko nettali sëñ Moustapha sëñ Abdou Khadir waxi noppi jataay bii nga xam ne nag moo am barki démb sëñ Moustapha Saliou moo ko leeral ñu jële ko ci jëmm ju baax joo xam ne moom moo ko fekke te yàggul boo xam ne sëñ Moustapha sëñ Abdou Khadir mii fekke na jataay ba soxna moomim sëñ Saalihu Mbakke fekke na jataay ba ak ñu bari ci njaboot gi bindikee di ko siyaare mu yëkkati kàddoom ne képp kuy ñëw ci kër gi wax ne day joxe si addiya bu dee nitu nguur bu mu dugg bu dee nit koo xam ne nii boromam société la bu mu dugg waaye bu dee taalibe Sëñ Tuubaa yi nga xam ne nag dañuy ñëw di daan seen doole di joxe seen addiya bàyyi leen mu dugg waaye bu fi nitug nguur dugg bu fi nitug politicien dugg bu fi nitug homme d'affaires dugg loolu sëñ sa Sall bi mu ko waxee léegi yaakaar naa ne mu ëpp juróomi fan te fi mu toll nii ñoo ngi fii ci la 3 novembre 2017 te bi mu ko defee léegi mu tëgul juróomi fan mu tax wax loolu benn benn benn politicien bu koy këll këllee amul kenn du yab sëñ Tuubaa di ko jaar ci sëñ Moussa Sall kenn du yab sëñ tubaa di ko jar ci sëñ Moustapha Saliou amul bu ni ñëpp defoon tey yoon kenn du tere kenn dara xam nga ne kii de bu sëñ Sidi Muxtaar la joxe waat digal am lu muy tere ci dëkk bi ñett ñii taxul ñu di wax kenn mësu leen caa seen te sëñ Mbàkke soxna loolu mii na jamono ba nga xam ne Touba yëngu na sëñ Saliou Mbàkke woote woosati sëñ Touba yëpp ak njabootu sëñ Touba ji ba ñëpp ñëw te booba yëngu yi bari kenn ku nekk di fëggub dënd naan mën sëñ Saliou woo leen ñu ñëw ba ñu ñëwee toog tuuti ñu ne sëñ Modou sëñ Abdou Khadir ñëwagul ak sëñ Mbacke soxna Lo sëñ Saliou Mbacke ne ñooñu ba may wata ñoom taxuñu waaye yàlla dogal na mujj mujj nañ ñëw la leen may loola mooy ak taalibe te doomi sëñ Touba seeral na leen te loola rek mooy li am njëriñ lu fi waaye man a am ci àddina defe na yaa ngi ci dara na la wóor ne liggéeyu seytaane ci ngay xëy ci ngay gont ñu amul baatin dong ñooy dem ci buntu kër sëriñ si di ñooy dem ci buntu kër buur yi di leen yàppar yàppare di to di wax ak ñoom ak bëgg lu am kon ñii damaa bëgg nit ñi bàyyi leen xel ku jàpp ci ñoom jàpp gi dëgër danañ la yóbbu ci sëñ Tuubaa sëñ Moussa Saliou mii jëmm jooje nettali na ma ne sëñ am Mbacke wax na ko ne soo fekkante ne lii nga xam ne mooy alati alali buur yi mën nga koo muñ danaa la garantil fii ak fële loola tax mu gar ci bakkanam laal seen alal ak dem barsàq la yemale fi mu toll moo tax lu ci may kenn paal moo tax mu am indépendance ci moom am liberté ci ba moom kenn yóbbu ko te lu mu am lew na te jaamu yàlla bu mu jaamu yàlla yàlla dana ko nangu ndax dafay dox ci dëgg koy dox ci dëgg nag dëgg rek ngay am waaye xam ngeen nag gàcce la buntu kër buur muy président de la république surtout sëriñ Touba dem fa nekk fa garde corps ñaaw na trop ñaaw na trop surtout Serigne Touba dem ci palais de la république nekk fa garde corps loolu gàcce mënu ko gën a kawe ci gàcce yi ak mooy yàlla gu nit mën a mooy yàlla jàpp naa ne sax moo tane loolu surtout sëriñ Touba bu amuti tool amuti daara di yem ci buntu kër buur bàyyi la sëñ Touba seqoon ak lab jor ak nam ko jàngale ak nim ci bind xasida ñu ne ko fa kupp ëpp ko dem buntu kër buur yi di leen balal seen bunt ak di leen doxali service ngir lan ngir alal yi ñuy yëkkati di la ko jox alal yi ñuy yëkkati di la ko jox dog ñor la te gis nañ ko am na ci ñoo xam ne sëti nee nañ sëti sëriñ bi lañ ndax man ko sant Mbàkke damay jàpp ne rek sëtu sëñ bi la am na ci ñooñ kay buntu kër buur duñ fa jóg fa la ñuy bóof ngir bëgg luñ am loolu na ñàkk batin laa ko teg waaye ku dem ba buur bu soxlaat ñëw ci yow tàllal lay loxo nga fajal ko soxlaam te muy dëgg ba pare nga wàññi ko waraat sa oto toppaat ci moom di ko ñaan ca lam yor moo ak sarax gumba ba pare wàññi ko topp ko di ko di ko ci yalwaanaat benn la satub sëriñ Tuubaa day waroon na rus buuru àddina di ñëw fi barab muy jiitu di ko xalal wala nga ci féewal say bokk ngir ak bañante ba xalifa général di yëkkati kàddu di wax ak yow àddina sépp seere ko mu denc ci jiitu bi loolu gàcce mënu ko wees te loo xam ne si ci image ab télé lañ koy def njiitum réew bu demee bay ñëw tuuba am ci ñoo xam ne dañuy dem di ko xalal mel na bëkk nekk nga xam ne ni ab toolu bi war a defub sëriñam noonu lañ ko war a def nga di ko defal buurub àddina loolu gàcc gënu ko kawe barke sëriñ ma Samba Mbàkke gàcce gënu ko kawe waaw te njariñ li jóge ci nit ñi buur yi di ñëw ci yéen mën ko faj benn soxla mën sa faj benn soxla loo ci tabax dana mab tayit addina dong la te sëñ Tuubaa waxoon ne laa tashtari dunya bi uxraa yaa fataa la wax man baa nuuran bi du jaa fa sa yendamu billaahi ku ko def da nga rëcc ku jël sa àllaaxira jënde ko si àddina bu bon bii nga xam ne saytaane da cee bari doole fexe ba récupéré la boole la ci kuréelam nga ciy xëy di ci gont nga xam ne àddina dong la ñor te yaakaar na te bëgg ko wéer ci say maam wala nga bëgg ko wéer ci xam nga ne waru nga buur yi àddina yi de mënuñoo may kenn àjjana ndax liñ am dara baaxu ci moo taxoon sëñ Tuubaa woon ko gannaaw mosu koo laal ak loxoom te mosu may kenn mu ñëw di ci dugg mboolem ku fi nekk te doon nekk bu sëriñ buñ mën a wax nga mën a ñaan mu nangu yàlla daa dogal mosoo laal riba waaye am na ci ñoo xam ne si di tey jii barke borom Tuubaa Mbàkke tubaab yi sax leen dàq ñaan bu tubaab yi ñaanoon ñoom ñu ñaan li tubaab yi ñaan mooy nangu ndax tubaab yi lu bon bon am na luñ gëm te respecté nañ waaye gàcce la lool mën a tilimal yoon wi lool mën a tilimal dëkk bi lool sëtu sëriñ Tuubaa bu sant Mbàkke dem ci buntu kër buur taal sab oto guddi nga dem di ñaan audience ñu di leen ragal kenn par kenn ba nga xam ne audience bi ki leen koy jox sax day mujj jéppi leen ba day mujj jël dara rek séddale leen kenn ku nekk dem ci sa biir kër toog ak moom di ko lekk a gàcce mënu ko wees ñeenti ñii ma leen wax de wala ñetti ñii ma leen wax de ku ko leen xam sa boo nga daal di dut baram man wa ma sahid naa ila bi ma xalim naa sëñ Moustapha kenn ku ko mas a gis biir palais bu dul luñ ko fa yónni mu war faa dem soxlay boppam yëkkati ko télé di ko génnee journal di ko bind mës sa am si àddina kenn mësu koo dégg kenn mësu koo gis sëñ Mbàkke soxna loom ñii kooku moom mooy sama référence kooku moom yaakaar naa bu may wax ci yu ak ku ma ko mën di wax moom laa ci war a jiital kenn mës gis mu wàccee boppam di boppam ngir lu mu am si àddina di ko jaara ci burub àddina mës am ku ko xam ñëwal wax ma ko xam nga ne kii sigil na sëñ Tuubaa li mu réalisé ci yoonu murid bi taxawalal ko Serigne Touba fii jikkoom ji dong moo ko ko may te am na ñu ko gën a jege Serigne Touba fuuf ci ay sët bu fekkante ne jege ci deret lay doon am na ñu ko gën a jege ndax am na ñu sët direct lañ waaw te lii mu réalisé jikkoo ko tax mu réalisé ko ak bëggum bëgg Serigne Touba ak maamam Cheikh Mamadou Moustapha sëñ Moussa sëñ Abdou Khadir mii kenn ko ko mas a gis pale muy dem di sukki bunti bëti wóomam comme ni moromam yi amul kii day xam nga ne siggil na sëñ Abdou Khadir Mbàkke de billaahi siggil na sëñ Abdou Khadir waaye siggil na maamam sëñ Tuubaa siggil na yoonu mu dem tey ñëpp a ko bëggee moo tax fu mu ñëwee ci réew mi adduna sépp nañu daw di ko siyaare ndax di ko xemmem ku yorul loo teg ci xam mi dañ ko gis ndax bëgg ko moom magam ji sëriñ Cheikh Mbàkke waaye am na ca ñooñ de bu nu dikkee la sëñ Tuubaa waxoon rek ñoom naaru gànnaar yam bala ñoo dund dañoo sol seenu dal kër gu nañu dugg fa fu na ñëw wata fa ñu di leen toroxal ndax dañoo joxul yàlla cër te man kaana lillahi kaana lahu lahu ku nekkal yàlla nekkal la waaye ku nekkalul yàlla yàlla dalay satan moo tax fokk nga sonn bala nga dund kon nag yàlla na nu yàlla gën a dimbali gën ñoo jàppale ci ñett ñii nga xam ne ay référence lañ te ay millions yi sët lañ yu mel na ñoom ñii kon dañ cee tànn ñett ndax dem boo gis fokk nga am koo jiital wàññi boo gis ci benn ngay tàmbalee waaye ñett ñii dañuy modèle kii setul Cheikh Moustapha la ñaar ñii turandoo sëñ Modou Moustapha lañ kon sëñ Modou Moustapha la yàlla dellawaat rek ngënee li addina ak àlaxira ab liggéeyam du mas a naax saay ay sëtam dañ ciy jariñu ay doomam dañ ci jariñu ay turandoom dañ ciy jariñu ay taalibeem dañ ciy jariñu kon ñoo ngi taxawandi foofu di leen jox dig dajee ci beneen numéro incha allah ci deuxième numéro su ko defee ñu ñëw mën a leeral lépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh